Euh, mbokk yi nuyu naa leen maa ngi tudd Guy Marius euh, di wax ci turu FRAPP suñu teewaay fi nak tay ñun wa FRAPP moy euh, ñew pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et sœurs de Yanamar. une double solidarité benn solidarité bi moy suñu doomu ndey kilifa ak Simon ci li len dal Benen solidarité bi moy l'institution Yanamar, a bi nga gis il y a une entreprise une tentative de liquidation et de démantèlement systématique de ce mouvement-là ñaar yoyu moo ñu fi indi yonent bi da doon wax né ah sa mbokk bu togné na nga taxaw waaye bu bu itam buñ ko togné na nga ñun dañoo ñëw dox tànku mbokk ndaxte suñuy mbokk lañu suñuy doomu man ma am si benn mu am si aspect particulier ndaxte 2021 ak ku ni kilifa li ma wax ak ku kilifa li ak ku kilifa kilifa sax sekku ko ak man sax sekku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 yéen wa Y en wa marre yéen wa Nangam Li ngeen di posture bi est-ce que ak li ngeen di xeex sur le plan moral ñu koy naxarlu di ko regretter Waye bu weesoo loolu dañuy baye justice def liggéeyam Li mooy premier aspect bi deuxième aspect bi nag dafa am ay éléments yo xam dafa wane un complot manifeste duma ma ci sori vidéo bi nu mu génnee fekk waa ji mu ngi kaso kan moo ko la gendarmerie wala administration pénitentiaire wala avocat bi giseek euh, Thierre Mamadou le timing wa Y'en a je wax nañ ci lan moo tax ñu xaar 45 jours en réalité dafa am une affaire moy li waa wax quand vous êtes embêté par une affaire vous créez une autre affaire une affaire dans l'affaire et une autre affaire dans l'affaire de l'affaire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 mais autosaisine sélective procureur mais diffusion de données personnelles de manière illégale bu faites autosaisine rek mais fofu nga war a que autosaisir sa bop nee nañ c'est que problème la femme am un caractère de trouble à l'ordre public mais nervi yi pendant des mois ils ont agressé des Sénégalais lan mo gëna lan mo en termes de trouble à l'ordre public fu dem ñu ñuy dóor fu dem ñu ñuy bastonner le procureur n'a pas estimé que les nervis de Nianing les nervis du Fouta les nervis de xawma fan ce n'était c'était pas un trouble à l'ordre public qui était suffisamment grave et dangereux en termes que les sénégalais d'or ay sénégalais Yenen sénégalais jël jaasi pour fayu procureur saisir jusqu'à présent les nervis sont là nous libres comme l'air leurs photos ont été diffusées partout Nous dossiers dossier bi m'ont constitué un trouble à l'ordre public tel que il faut que nous autre élément constitutif du complot procureur de enquête et arrestation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 Ou il aspire à être migrant et même dans l'enquête, tierre l'a confirmé Ça doom une faible. et les enquêtes ont confirmé que Thier dafa am doom trafic de migrants pour lan donc l'Union qui a ramené ki nga Simon un autre élément du complot trafic de migrants est mooy migrant bi non ce n'est pas un candidat à la migration C'est un candidat pour yóbbu qui mu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 Nous dorlons leen dóor les depuis mois de mai nous portons plainte déposé gendarmerie depuis le mois de mai bataille tey tous il faut être sérieux là ku l'air ci kumba am à kumba amul vous la dara du la dara won dama kumba am akumba ak kumba amul ndey Karim du dëgg du Khalifa Sall du de du Ousmane Sonko et ils ont commencé. Doumalim Bougazeli, effectivement. Bougazeli est libre comme l'air. vous foog la drogue eh nous avons dëgg waa Y'en mar marre ay eh, jàmbaar ils ont donné une leçon de bonne gouvernance depuis 2012 fan Makissal, APR ak Benno Bokk régulièrement tous les jours des ministres sont épinglés qui à un communiqué de l'APR paire les ministres les directeurs épinglés nous am promotion Y en a marre à donner une leçon de bonne gouvernance à Macky Sall, à l'APR et à Benno Bokk Yakaar vous ne pouvez pas rester silencieux quand

xaw ma le postier Thérèse Faye ak Sen, la liste est longue Cher Cheikh Omar ñebbe an kan ngeen dans cette très longue liste ne coûte démissionner. Mais je veux mettre à l'aise le gouvernement et mon parti lui a suspendu l'équivalent d'une démission gars yi dans des dans des facultés de sciences politiques Politicien de la paix, prenez-en de la graine. Politicien de Benno Bokeyakar, prenez-en de la graine. Politicien de l'opposition, prenez-en de la graine. Li moi wax ci. moi Il y a deux parts. La responsabilité individuelle. Et moralement, oui, d'autres Mais il y a une grande part de complot. Complot bobu nak duñ ko tay, Man je suis chrétien. Et après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 nous avons un président de la République Macky Sall à l'esprit revanchard et c'est cette revanche qui est en train de continuer ñun am Salam alaikum. Euh, je pense que